C'est une journée, c'est des journées portes qui sont organisées dans le sens d'une décentralisation. Parce que comme je le disais dans mon propos, le, Sénégal ne se résume pas à la ville de Dakar. Et Thiès est une ville en pleine activité et en plein essor économique. C'est un carrefour également avec, d'autres régions du Sénégal. Je citerai notamment la ville de, de, de Mbourg, hein, c'est une porte d'entrée. il est, nécessaire, il est il est légitime que Kiev puisse accueillir ces, ces, ces Je, on profite pour effectivement saluer les populations sénégalaises ainsi que leurs représentants. ces journées sont organisées pour déjà euh, permettre ces consultations gratuites. Elles sont déjà dans nos offices, mais dans le cadre de cet événement, euh, elles le seront plus, je pense, les gens, les gens seront plus enclins à venir euh, demander conseil euh, et, savoir un peu euh, euh, comment agir quand il s'agit de faire une opération particulière. C'est des journées qui vont apprendre à, qui vont permettre de faire connaître le, rôle du notaire, son utilité et, également rapprocher évidemment cette profession des usagers. dans toutes les, comme dans toutes les professions, il, effectivement, il y a des difficultés que l'on euh, à surmonter, euh, mais c'est dans le cadre normal de, de, de, de nos activités. Le domaine de prédilection du notaire, c'est l'immobilier. Euh, et le, le, rôle du notaire, c'est de sécuriser les transactions immobilières, sécuriser les, les, les contrats et les, opérations juridiques qui sont effectuées. L'intervention du notaire est fondamentale dans la, la transaction immobilière, dans les opérations d'achat et de vente de biens immobiliers. C'est ce que nous essayons de faire, comprendre aux populations sénégalaises et à travers ces journées Je pense que l'essentiel des difficultés tiennent au fait que les populations sénégalaises ne se rapprochent pas toujours des, des professionnels de, euh, que nous sommes, des notaires, qui, sont, plus à même de leur expliquer les, les tenants et, et de leur, de leur engagement, euh, qui pouvons leur expliquer la nature du bien qu'ils acquièrent. Est-ce que c'est un titre immatriculé Est-ce que c'est un titre non immatriculé Quels sont les droits qui peuvent être cédés Qui en est le tutélaire qu'on peut en faire Je pense que les populations sénégalaises, à travers ces zones et portes gagneraient à se rapprocher plus du notaire pour sécuriser leur opération immobilière. Je peux dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des difficultés, en tout cas la majorité des difficultés des litiges fonciers que nous avons, sont des litiges qui sont intervenus parce que les transactions ont été accomplies hors l'intervention du notaire. Écoutez, ce qu'on qu a fait aujourd'hui est déjà un premier palier. Ces journées portugaises sont également pris avec les radios communautaires et les, télé, et les télé, télévisions pour faire des séances, des d'animation, des émissions pour mieux faire comprendre euh, mieux la profession de notaire. Ça, c'est des éléments importants parce qu'il faut savoir que le notariat exerce un service public. C'est très important de le dire. Les Sénégalais ont droit au service public du notariat. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, euh, tout récemment, nous avons accueilli d'autres notaires, qui sont au nombre de 20, qui sont venus s'ajouter aux autres notaires qui existaient déjà, pour que partout dans le Sénégal, les Sénégalais, puissent recourir à un notaire, demander et faire leurs transactions en toute sécurité waaw damay commencé di gërëm waa waa population Thiès bi population Thiès bi ñu dalal ak seen représentant adjoint au préfet le président de la chambre de commerce président de la chambre de métier vraiment gis nañu ne kenn desul Thiès pour dalal bi te loolu dafa nekk mbégte ci ñun euh, niñ ci jublu nag leer rek la Thiès dafa nekk ba nga xam ne vraiment koom waxuma ne euh, euh, moom Dakar ñoo yem de waaye soreyantewuñu donc dafa laaj ñu koy gestu euh, Sénégal yemul ci Dakar donc Thiès dafa nekk dafa rompre activité dafay yoon te bu ñuy def journée porte ouverte ñu daal di ñëw fii defee ko fi c'est la première fois dañuy jógee Dakar dañuy jàpp ne cees ak vraiment dynamique économique bi mu am ak suñu collègue yi aussi liggéey bi ñu fiy liggéey jaadu nañu organiser ko fii ci Sénégal vraiment ci fii ci Thiès te vraiment dañuy dolli di sant le président de la chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Thiès qui a mis tous ses services service am yëpp yëpp mu jagleel ñu ko pour que surtout journée bi nekk journée bu at mu ci ay ba nga xam ne réussite lay doon incha loolu moom la ñuy wutu ci ci journée bi vraiment euh, ñu ngi woo askanu Thiès ak bu Sénégal yëpp parce que am nañu xëy na peut-être ñi xam ne fi jàdd nekk fi momentanément duñu waa Thiès sax mais terewul mën nañ fi ñëw euh, euh, laajte li ñu war a laajte ñu expliquer leen parce que li may wax dama koy wax toujours euh, man xaw ma lu tax sénégalais bi nga xam ne dañ koy jox possibilité mu laajte gratuitement bañ a juum ma ku ku laajte doo juum nga mën a ñëw laaj notaire toog wax ak moom diir bu mu la neex mu expliquer la lépp nga génn dem te doo ko jox fistine parce que defaloo la kayit boo demee sa kër nga nga gànnaay ak sa sa sa njëganaay ba nga xam ni ngay def nga ñëw def boo defee ngay doog a fay loolu dama xamul lu tax nit ñi duñ ko def parce que loolu war euh, euh, loolu amul ci yeneen dëkk boo demee fii nii France boo demee boo duggee consultation bi da nga koy fay boo duggee rek boo boo boo boo waxee notaire bi da lay chronomètre la jox la conseil bi nga fay fii nag moom lépp gratuit bu weesoo consultation gratuite te loolu tamit dama koy leeral acteur yi yamul ci consultation gratuite bu consultation gratuite jeexee képp ku soxla am information na ñu leeralal dara ci sa liggéey wala ci li nga bëgg a def boo mën nga dem ci notaire boo demee dañ la expliquer clairement te doo ci fayante dara parce que yi koy indi yëpp mooy bañ a laajte fekkee ni dama dama dama toog yàlla may ma ma wërsëgam ma dajale ba am as tuut bëgg jënd suuf ñu wan ma këyit la ma terrain la ma lii terrain bi maa ko bon wan la këyit mais yaa xayta demal ci ka nga xam ne moom loolooy liggéeyam mu wax la parce que këyit bi mën na am plusieurs situations yi tax ya nga xam ne du baax këyit bi borom mën na ko bañ a moom kii la ko ki la mën na ko bañ a moom këyit këyit bi mën nañ koo tayale këyit gi mën na baax nit ki la ko wan moom ko mais mënuñu ko tabax ñett kayit gi mën na baax mën nañ ko tabax ki la ko wan moom moo ko moom tey la wuñ ko mais la nga ca bëgg a tabax doo ko tabax parce que dañ la ko tere urbanisme moo la ko tere yooyu yëpp nag xayma yooyu ak leeral yooyu notaire bi loolu mooy responsabilité bi te notaire bi bu ci jé bu ci jég ñu bu fekkee ni def ko ni mu ko waree problème bu ci am moom da koy gàtt boobaa yow même bu fekkee ni sax dañ la nax ci la jaay moo la nax terewul yow boobaa da ngay bàyyi ki la jaay fële nga wax ne ko man ñii de laa joxoon sama delloo ma sama xaalis loolu ci la bokk loolu ci la bokk xam nga euh, ñun suñu liggéey suñu premier liggéey mooy liggéeyu suuf bu ñu waxee notaire rek suuf la ñu njëkk xalaat bien vrai que du liggéey boobu yamul foofu ndax bu ñuy booy créer société ci notaire ngay jaay boo buggee def mariage boo buggee def contrat de mariage ci notaire ngay jëm boo bëggee la banque ci notaire ngay jëm boo bëggee euh, euh, boo amee nono ci notaire ngay jëm waaye suuf mooy suñu premier rôle donc ñun suñu suñu suñu devoir mooy ñu fexe ba jënd ak jaay yi am ci suuf mu jaar ci yoon moo tax ñuy woo askan bi lépp lu ñu am lu ñu lu ñuy jaay ci suuf ak lu ñuy def ci suuf ñu ñu ñu jógee ñu expliquer leen li ci nekk